jërë ngeen jëf ab xeer bu bëggee tëye aw sàkket da cay daru ñàpp l'observateur nee nañu président Macky Sall nee na ministre yi ci gouvernement bi nañu dar askan wi darale seeni soxla te bar ci maanaam pression la leen teg bil yéene kay bi démb la leen ko wax ca ndajem conseil des ministres gawoon ca salle Bruno Diatta ga ca palais sàkku na ci ñoom ñu wéy di taxaw askanu Sénégal jàppale leen rawatina ci jamono ji nga xam ne bu ñu leen seetaanee mën naa tar ci ñoom moom njiit réew mi Macky Sall yamu ca xamal na leen ni dogu gu mu ba insisté ci ngir projet yi gouvernement bi sumbu ñu sottal ko nu mu gën a gaawe li garaaw ñépp di accident yu bari yi ñuy gis ci réew mi président Macky Sall ne nu ñu mën def ba dakkal ko rekk nañu ko def tolérance zéro doxal loi bi ni mu ware vox populi nañu ndax yàlla Macky Sall jëmbat yitte ci jafe-jafey askan wi démb ba ñuy def ndajam conseil des ministres yokku na ay santaaneem ngir ñu jàppale nit ñi ci nawet bi ak inondation yi fu ñu mën a nekk ci réew mi ak it ci accident yu bari yi am ci réew mi taxawal ay matuwaay ak ay misir yu mat sëkk ci tali bi ba léegi duñu defati sàmba sugum gay mujjug rekk ñu jox la permis ngay dawal ñu bañ a yombalati yi ñuy joxe permis ni ñu jël ay takk der yu doy teg ci tali bi renforcer contrôle bi laatir bi nañu Macky Sall far na soppali ko doon ab sandarma ngir xeex fu permis yi am ci réew mi ndax dafa jàpp ne bokk na ci liy sooke accident yu bari ñu fi nemmeeku soleil national nañu du loolee rek ci le président national bëgg gouvernement bi def ci yitte gaaw ci ne bu weesoo kaaraange gi war a am ci kaw tali bi wax ne ciw bi ci politique de santé ak ni mu ko bëggee ci réew mi direct info feelu soleil national routière di ci wàllu wér gi yaram projet yu gouvernement bi ba ci wàllu njàng mi enquête dina kay nañu Macky Sall nee na nañu ko génneel policier ak gendarme yi teg leen ci tali bi ngir ñuy saytu dem beeg dikk bi ba wàññi accident yi këram moom Macky di APR ci la Sud Quotidien xëy yéen bi nañu dippi bi fi Maodo Malick njiital ana moo génnee di wax ci waxi succession Macky wax ji ba léegi giifagul ñi ànd ak moom donte jàpp nañu ne wax ci waxi ndonol Macky a xalaat ak di wax waxi 2024 faaw am ku jiite APR faaw it ñi ci coalition Benno Bokk Yaakaar wane seen bopp moom ci boppam di Macky Sall suur soit nee nañu na comme talaata boo xam ne war na koo yëg fa mu toog Moussa Diaw président bu dee amul leneen lu muy nësër lu dul rekk li askan wi di xaar ci moom kon waxtu wi waru fee nekk di lijjanti mbiri politique ñi bëgg président de la république lijjanti leen Les Échos nee nañu moo di chargé de mission yi am nañu lu leen mitti ba di ko xultoo ko ñaxtu ne jële gi ñu jële ci réew mi poste premier ministre jafe-jafe téq doxkati yónnent yi di chargé de mission yewoon ca primature ak ca cabinet bu président de la république ndax weeru août wi dee kenn ci ñoom amul salaire li ñu jàpp nag moo di dañu leen a soxla jëfandikoo leen ba seen aajo faju ñu sànni leen ne aw sagar ndax deuxième mandat la bëggoon am nañu ko amatuñu ci ñoom soxla leneen lu leen mitti ñoom chargé de mission yi nee nañu mooy ba ñuy jël dogalub tàggoo ak ñoom kenn waxu leen dara mu di lu ñaaw ci seen i gët ndax bu ñu leen ko waxoon sax a teel a jël seen i matuwaay honorable député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly mel ne ku naan ñu député yi ba léegi fayekooguñu te bu njëkkoon gën koo yàgg le 28 ci weer ñu fay leen guleet ci weer wi ñu dem ba le 5 te jotuñu seeni salaire ñoom député yi mu di lu leen jaaxal nag mbir a ngi mu jaaxal journal Le Quotidien mu di roppalaan bu Sénégal air bi fi daanu woon yéenekaay bi na nañu bés ni tay la woon def na ñeenti at te boobu ba léegi kenn xamu ci lu leer Mbaye Diagne mi ngi leeral ci record yéenekaay li tax mu jóge Galatasaray dem football ji FC Bruges ba ca Belgique moom footballkatu Sénégal bii di Mbaye Junior Diagne ñeena waa record yéenekaay maa sàkku jóge Galatasaray ndax dama yëg ne Radamel mi ngi ñëw te xel xalaatul may damu ban naan maa ngi doon ay numéro 2